kaay nii kaay nii nga ne loo bokk ak Sénégal. ay lex laa bokk ak Sénégal. ay lex daal nga bokk ak Sénégal. maa la wax leneen mais ñu ngi lay kontaane. mais maa ngi lay kontaane mais damay bëgg tey booy nuyoo nga nuyoo euh, ci turu El Hadj Ndiaye sama père laa bëgg nga nuyoo ma xool noo nuyoo boo doon. boo doon hey ñoo ngi nuyu Télé 2STV. et eh, que ça man damaa mbégte ci yow. Ah. parce que kale yi dañu la sopp madame Ndiaye dafa wax euh, ay yeneen animateur man déedéet que ça matin que ça <laughs> euh, maa ngi bëgg a ñu def saak ngoon bi uh-huh. boo animé ba ngoon uh-huh. boo demee añ ba pare nga ñëw reprendre comme école boo jàngee ba trois heures nga duggaat uh-huh. su ko defee parce que kale yi mais problème affaire mbëggeel bi bii ko parce que kala yi dañ lay provoqué maa ngi gis kala di la woo di wax sa baat bi dafa neex yooyu pour pour affaire lomotif ko yooyu laay bañ nga non defal attention ay ay affaire yooyu bu ci dugg dégg <laughs> parce que suma télé bëgguma yooyu <laughs> ku ñu fi lomotif dama lay dàq non sérieusement ku ñu fi lomotif ma dàq loolu moom. Euh, d'accord xam na ñëpp xam nañ loolu. <laughs> d'accord waaw yow Gerte Waar laay wax la. léegi léegi nuyul ma ci maître El Hadj Diouf.